seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim <clears throat> mbokk julliti mbokk taalibe yi rawante rawante nag ñun nga xam ne ñoo ñoo jokk si seen Fallou Mbacke si ndégalu soxna Assou Mbacke mi nga xam ni mooy doomu sëriñ Fallou bis bi nga xam ni dañ ko koy sant moom sëriñ Fallou di ko def si quatre saisons su euh, tabla xaar yàlla si ndégalu sëriñ Sidi Mokhtar ak si ndigalu Serigne Saliou Touré mi nga xam ne moo fi teewal sin si moo fi Serigne Serigne Touba fii si diwaanu Kees suñu bis bi nga xam ni moom lañuy waajal si ndigalu soxna Asu Mbàkke mu Serigne Fallou di cant goo xam ne dañ koy waajal le sept le le quatorze janvier ñu si woo mbooleem jullit mbooleem taalibe boo xam ni danga ngaa jokk si Serigne Fallou ñu ngi la si woo. di jiital suñu jëwriñ sëriñ mbay ñan mi nga xam ni moo fi wal sëriñ Abo di woo mbokk mboolem taalibee boo xam ni da ngaa jokk sëriñ Touba te dëkk si diwaanu Kees rawaate na nag waa Cité Senghor ak fépp foo xam ne taalibe dafaa nekk ñu lay woo suñu bis di si woo sëriñ Saliou ture di si woo monsieur le maire Talla Sylla di si woo monsieur le maire Pape Bassirou Diop ñu soxna Aida Diagne soxna Asou Diagne suñu maire ñi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal gox bi nga xam ne ay daayira lañ fi ŋànk muy sëñ Mouhamadou si ñu gën ko xam si Dieng si sëñ Mouhamadou Ba ñu gën ko xam si Pape sëriñ Talla jum sëriñ Papa caw nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey sëriñ Touba fii si kees ak ak euh, kenn la sëriñ Touba nga xam ni. fédération kenn Serigne Touba nga xam dafa nekk fi nga xam ni daayira yi ngànk dëkk gox bi ñoo ko fàyyiwuñu kenn fàyyiwuñu kenn